nationale ici à Diofior le 4 juin 2024 Lamb Thiek Jam production diggante Babou Sam Ndamal Daaru borom Diofior ak Ndiol bu Sala borom Sowal waaw borom Sowal dëkku Ngot fii saa Ngot borom États-Unis dem lay fàllu ko Espagne men borom waaw waaw di bëgg waa doomu Sowal di bëgg waa Diofior sama dëkk waaw waaw Babou Sam Ndamal Daaru arbitre bi bëgg waa ñoom foo bëri sama groupe bi waa ñoom 100 pour ana waa Bale Bisam waay waaw waaw ñoom Enzo ñoom Bis Bamba Zal Ndiaye borom Espagne Jibi Keita waaw waaw e no final jege yaay fafa pe na bugam sawle xool ndeysaan dani jumbaram fi mu la ziar naa la ana docteur Fido Sarr ana Medine Diouf ma ne ana Aliou Gaynako Sow ànd ak ko Sam Omar Sow Gaynako Babacar Faye Black Mandong Chef de Fomad Babacar Ndiaye borom Gandiaye Mamadou Diouf borom ñam 100 pour 100 borom Fatick Omar Ndiaye borom Kaolack ziar naa la ana Mamadou Cissé ak Amadou Cissé waa deuxième wala ka deuxième ñu boo ñam ne vaquer góor maa goy no a day Babou Sall daanu jël bu sana ndeysaan maam sey Mamadou Diouf borom mbir ma samba ana maam ana xaar Diouf seeri sanu borom Saloum Abdou Sagne l'homme social Abdou Sagne benga yaa juma Souley Sagne le grand promoteur mais ana balok Doudou Niane Samba Niang Rebeuss mais Mamadou Ndiaye oxo ana Ousmane Deb Soul Robert Diouf ziar dala Biram Gaskel Saliou Dëgër Saliou Ndiaye Papis Papis Gueye Christian ala ñol busala Babou Sall nabal daru eh Babou Sall jël na ko Babou Sam takk na ko Babou Sarr Babou Sarr Ndiol longo na oho Ndiol ak Ndama la manu ndiro na faama telo i ndiro jam fina sa ñeyare waay njool na mala me ba caxabal Babacar Ndiaye borom Joal sey waay kura mi jarar yaga ji delo barka sew tondo buday ka kama share ¡No cojo xaw cero.